alhamdulilah rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi cant day ñeel na yàlla sunu borom moom rek mooy ki yeyoo ñu sant ko moom mooy ki yeyoo ñu gërëm ko ndax daf noo defal loo xam ni kenn musuñu koo defal te kenn duñu ko defal ba àddina tukki sunu borom day buur bu baax la ci ñun rawatina ñu gëm yàlla ndax bokk na ci xéewal yi mu ñu defal te liñ dul tudd mooy ëpp ci jamono bu ne sunu borom dafa tàkk ak barab bu ñuy tuddee àjjana yànjal ko lool ak ay xéewal xéewal yoo xam ni bët musul gis lu ni mel nopp musul dégg lu ni mel waaye xel musul xalaat ba daj lu ni mel sunu borom waajal ko mu mel na mu mel te moom du ko jariñoo waaye sunu borom daal di koy waajal ngir jaamam yi ko gëm doon ko topp ci kaw suuf mu nekk seen ab neexal mu nekk seen ab dig yemul ca loola waaye sunu borom mbokk yi mu yombalal nu jëf yu baax yi nga xam ni mooy tax a dem àjjana jàppandalal ko ba boo seetloo bunt yi ci jéegu jëm àjjana moo ëpp fuuf bunt yi ci jéegu jëm safar ba tax na jaam yàlla yi gëm yàlla waruñoo am yeneen yitte ju yootu rek bunt yooyu nga xam ne ca lañ na a jaar tàbbi àjjana sunu borom yemul ca waaye nag nit ki moomuy tàbbin àjjana sunu borom daf koo ëmbee daf koo àmbalee xéewal goo xam ni xaw tuuti kon mu toll ni tàbbi àjjana wala mu dàq ko mooy xaalidina fiha abada ndax xéewal kat mbokk yi ku lu mu neex neex bu fekkee am na fu mu yem xéewal ga ma neex na kaa fàtte waaye xéewali yi bokk na ci li tax mu neex moom mooy ajana amut yamukaay waaye day nekk rek faaw rek jëm bu kenn xamut suñu borom yemut ca loola waaye dafa dafa dafa dafa dafa gërëm dafa gërëm jaam yi nga xam ni ñoo ko doon topp ci loo xam ni bu doon doomu aadama ak morom ma rek loolu du ko tax a gërëm ndax suñu borom kat lu lu mu tuut ci cig mbaax suñu ko gërëm ca loola waaye da ca yem daf koy ful waaye doomu adama lu mu def ci ay ñaawteef ci gëm yàlla lu mu rëy bu ko jéggaloo rek sunu borom xalaat yëpp daal di sunu borom ba mu noppee ci loolu defalaat ñu geneen mooy daal di dogal nag ca boppam bind ci ay mbindam wax ci ay waxam ne ah meram kat lu tar waaye nag sunu borom def na ba am meram yërmande moo ko jiitu kon moo koy commandé yëmul ca loola waaye sunu borom kat mu daal di def ni kat yërmande moo jiitu la nga xamante ni mooy meram. te it nag ku bëri yërmande la moom suñu borom bokk na ci xéewal yi ñu dafa suñu borom defal mbokk yi mooy diirab at mi yàlla daf ñu fay wutal ay occasion yoo xam ni faggukaayu fiyaa bala waaye tàbbiwukaayu ajana la gis nga li ko tàmbalee ci bis bi ba ca guddi ba ci semaine bi ba ci weer wi ba ci at mi waxtu woo taxaw rek am na ay occasion yoo xam ni borom bi daf koo def ngir nit ki man cee jaare tàbbi ajana xoolal rek mbokk yi yonent yàlla bi nee na ci julli julli juróom ci julli fajar defee ko ni ko ko lislaam sante fii ba tisbaar di jot su fi mooy too bàkkaar yu mag yi lu mu def ci ñaawteef bu ndaw rek suñu borom falaxe ko bàyyi mu jàll maanaam nëpp nëppal ko rek bàyyi mu jàll su jullee tisbaar ba keroog muy julli tàkkusaan su fekkee dafa def ak ay ñaawteef te fekk dunal kabair la suñu borom xalaate ko rek daal di bàyyi mu jàll noonu la koy jox bu juróomi julli yi te loolu joxe misaal ndax ku am ak dex ci buntu këram bis bu ne mu sangu juróomi yoon ndax tilim dana def ci yaramam saxaaba yi di ko déedéet yaa rasulallah mu ni noonu la julli juróomi la dañuy pomp ay bakkaar comme ni ndox mi di pompé tilim bàyyi boobu xoolal bis bu ne ci guddi gi ci saxiixa muslim yonent yàlla bi nee na am na wenn waxtu woo xam ne ci guddi gi sunu boroom ci màggaayam ak xeewaayam ak ñàkk nuróogum ñàkk nuróog lenn day wàcc ba ci asamaanu benneel wàcc koo xam ne day tolloo yemoo ak màggaayam ak xeewaayam bila takyifin wala tamthilin wala taatilin wala tashbih amul ku muy nuróol amul ku muy dendeel amul kuñ koy joxe misaal bu mel nam mel sunu boroom su wàccee ba ci asamaanu benn muy wax ak ñi nelaw ak ñi toog ak ñi nelawul sunu borom naan ee yéen jaam ñi kan mooy jéggalu ay bàkkaaram ma jéggal ko ko waxtu waa ngi waaj jeex waaye kan mooy ñaan ay soxlaam ma may ko ko yéen ci yàlla dinañ ko loolu sunu borom dana ko def guddi gu jot beneen occasion boobu bàyyil boobu ñëwal ci semaine bi yéen ci yàlla bi nee na bisub àjjuma am na ci waxtu woo xam ni amul jaab bu muy tombeel mu tàllal ay loxoom yàlla di ñaan yàlla lu dul yàlla ko may lam doon ñaan borom xam-xam yi jiwee wan waxtu la waaye li gën a dëgër mooy mi ngi nekk ci ku tàkkutaan bu nu jullee tàkkutaan ba nopp ba jëm timit waaye nag ca waxtu wa sëf ca timis ja bi maana bu ñu dee ba six heures dugg commencé dugg six heures demi jëm nag fa ñu jullee timis dig digal boobu mooy waxtu wa nga xamante ni moo gën a dëgër tombeeg jant ba ji bëgg yonent bi dafa jàngale ci weer wi nit ki mu woor ci ñetti fan treize quatorze quinze ci weeru jullit ñi loola dafay sombeeg nit ki mel ni ku woor at mi yëpp bàyyil boobu ñëwal ci lii di tax a jóg tey muy aj occasion bu mat la boo xam ni fóotu bàkkaar la waaye weer wi tamit ak weer yi ko jiitu nekk ashurul xorom nga xam ni bokk na ci weer yi gën a màgg ci weer yi nga xam ni moom la yàlla subhanahu wa taala wàcc ci ak mbokk yi jaamu yàlla bu màgg la doo xam ni dafay tàmbale ajana waaye dafay sellal bakkan tamit ba doomu aadama ji su fekkente ni daf koo jooxe ci anam bi nga xam ni moom la ko sunu borom santee wa ma al asafi shadid bariwaane ñoo xam ne dañuy jooxe aj waaye lay aj ga daal sax nuy wax comme tey wax dëgg yàlla alhamdulillah liy dem ci xar ak màkka bari na ba bari waaye ci jéggi at mu jot mu yokk ñiy déglu information yi xam nañ li may at mu jot rek da ngay gis li demoon daaw mooy ëpp li demoon li nar a dem ren moo ëpp daaw li demoon daaw mooy ëpp li demoon daaw ji kon alhamdulilah nit ñaa ngi bari waaye mu kër mooy at ci boppam mbokk yi da di jaamu yàlla gu màgg gu gu sell gu jafe goo xam ni bari waa na koy def ba noppi te aj du leen jëriñ dara xam nga moos la abdullah ibn amar waxoon naafi a ndongoom lu lu lu mag la ànd ak moom ñuy aji mu xool mbooloo mi war seeni giléem ñu war seeni fas ñu war seeni mbaam jëm màkka bari lool comme ni ngeen ko gisee léegi moom dem nañ ba ni ñi xaar si sax Afrique yu bari léegi ñu ngi organisé wu ngir ci yóbbuwaate màkk alhamdulilah kon bari waay bi laa ci jublu naafi a ni cay ren de màkka nar bari ah ren yi bari nañ mu ni ko déedéet ren ñi jëm Makka bari waaye ñii ak moom bariwuñ xoolal mbokk yi boobu fekk ni mu xóotee mbooloo maa ngi dem ndongo yi ren day ñu nar a aji bari nañ mu ni ko déedéet ren ñi jëm Makka ñoo bari kon nekk jëm Makka ak aji bokkuñu ndax nit fekk ay bagaasam fay biyeem ndax dafa am xaalis fekk dem aji loolu moom dëgg yàlla yaakaar naa ne ñi ko mën bari nañ waaye dem aj aj bu lislaam gërëm nag ñi koy def duñu bari wa ma daanaka nit sax même bu xamoon ni ñuy ajee sa ajukaay ba ñu ngi cay def ay mooy yàlla ki ñaawteef yoo xam ne loolu da nga yaakaar ni ñii sax ba ñuy jóge seen dëkk tàggoo yoon pour dañuy aji kon jaamu yàlla boo xam ne bu ñu ko joxee dañ ko war a joxee wax dëgg yàlla dafay ba bakkan ba nit ki bu delloosee dafay sokkee ak ci boppam ci làkku arab ci wàllu luga mooy alqasdu alqasdu xajja mooy xasada kon tey su ma jugoon jublu pota bële su ma nee xajja ci làkku arab wala xajajtu ah haadihi saariya mooy jublu naa dem naa la nga mooy poto bële am naa ci sharia nag aj ak jaamu yàlla la goo xam ni dañ koy joxe ci ay jëf yu ñuy def lu mel ni daw safa marwa lu mel ni wër kaaba ga ci ñetti tawaaf ya tawaaful qudum tawaaful ifaada tawaaful wadaa lu mel ni jamra lu mel ni dem muzdalifa lu mel ni dem munal lu mel ni taxaw arafat ila axirihi ah yooyu yëpp ay xeeti jaamu yàlla la yoo xam ni mooy moom la ñuy tuddee ak comme ni ko sunna jàngalee bu dee omra nag moom ziyaar rek la ziyaar rek jug dem ziyaar bi foofu nag nit ñi dañuy faral di juum da ngay suñu mag ñi bu kenn di tàggoo damay dem ziyaara ji yonent bi déedéet loolu kenn du ko wax imaamu Malik loolu boo ko musaana wax da lay fommuloo mu ni kon yow aji wu toogal bul dem da ngay dégg ko xam day tàggoo bi damay dem ziyaara ji li nga yokkee mooy damay dem aji ji waaw boo ajee ma noppi nag bëgg dem ziyaara ji sa salam kenn ko bal takk say bagage ziyaara ji yonent bi kese kese kese kese kese sax laa gis daa bokk ci li ñuy jëlee loolu boo ko waxee nit ñi dañuy defee lu rëy la hadith la a wér la tusaddu rihaal illa ila talaati masajid takk say bagage damay ziyaara ji ab barab wala ab nit bu fa tëdd yonent yàlla nee na kenn du ko def lu dul ci ñetti li may wax du samay wax waxu yonent bi la alayhi salaatu wasalaam laa tusaddu rihaal illa ila salaati masajid takk samay bagage damay tukki foo jëm damay ziyaare ji diw muy ku tëdd ca armel muy ja muy suuf sa muy lu képp lu mu mën a doon islam da koy tere moo tax Abu Hurayra keroog ba mu génnee dem ca tuur muy fa sunu waram euh, waxante woon ak Muusa muy damay ziyaare ji barab ya fa nekk ah armel yaa xam naa demee noonu fekk moom déggul woon cere gi bi mu dajeeg benn saxaaba ca gannaaw kër yi mu laaj ko foo jóge mu ne ko fële laa jóge mu ne ko soo ma tàgg woon doo dem ndax yonente bi yii da koy tere sallallahu alayhi wa sallam lii mooy sunna de lii mooy njàngale yonente bi alayhi salatu wasalaam kon kay da ngay aji waaye boo ajee ba nag nga dem ziyaare yéen sax sax kenn terewul ko parce que def nga lu baax a baax a baax kon borom bi taala muy wax ne walillahi ala i xijju lbayti man istataa ilayhi sabila yàlla warlul na ci kaw lootu jaam yi ak buñ ko ameel war koo def mooy ñu ajal ko néegam bu màgg bi xam ngeen ne néeg boobu mooy awwal baytin wudi'a linnaas in awwal baytin wudi'a linnaas lalladi bi Bakka saxaabi yu baax ba Abu Dar al-Ghifari laaj la yonent yàlla saa salaam ban jàkka la njëkk a def ci kaw suuf mu ne ko xanaa masjidu Makka bi masjidul Haram mu ne ko ban jàkkaa ca topp mu ne ko masjidul Aqsa muy di nekk Jérusalem mu ni ko seen diggante ñaata at la mu ni ko ñeent fukki at ah te gis ngeen comme ni ñu gisee ci xadis boobu kon jàkka ja di topp mooy nekk jàkka yonente bi alayhi salaatu wasalaam kon yonente yàlla bi alayhi salaatu wasalaam mu ni ci xadis Abdullah ibn Amr sama eran l'islam ci juróomi ci juróomi photo yoo xam ni benn bu ca fàq rek néeg bi day daana ginnaaw boo waxee shahadatu la ilaha illallah ashhadu muhammadu rasulullah nga xam ne boo ko xamul loo def baaxul ah ginnaaw boo joxee julli nga joxe azaka nga woor weeru koor nga aj néegam yàlla bi waaye aj néegam yàlla bi nag moom soo ko seetlu ci sunna maa ci alquran moom dañ koy toftal boo ko mënee léegi man seetlu li ma def mooy moo ne yeneen jaamu yàlla yi boo ko mënee la de yeneen jaamu yàlla parce que woor boo ko mënul doo ko def sarate boo ko mënul doo ko Euh, euh, euh, nu mu tuddati jaamu yàlla yi ci des boo mënul xam ne mënul dara dara doo ko def islam toggatoo na ko waaye aj rek ngay gis nit boo ko mënee léegi boobu dafa am benn sew sew bu ci nekk boo xam ne boo ko seet xam ne boo ko na ci loolu mooy aj rek moom mooy jaamu yàlla goo xam ni li mu dajale ci soor ak ay nit dem ak dikk joxe ca sa alal teg ca sa bakkan teg ca teg ca teg amul genn jaamu yàlla bu ko am kon kooka boole ca benn yoon moom baax na ci lool moo ne moog yeneen yëpp ñoo yem boo ko mënut doo ko def ah benn yoon la war ci dundu jullit bi ñaarul ñett benn bi ci xadiis euh, euh, nu mu Abi Hurayra yéen yàlla dafa taxaw saxaaba yi xutba leen mu ne waaw sunu borom de farataan na ci seen kaw ngeen aj ñeegam bi fa xajju kon na ngeen dem aji benn waa jóg waaw mu jot la ñuy aji yéen bi sëgg fi mu sëgg rek waa ji toogam yaag mu ne waaw ma ne ndax at mu jot la ñuy aji yonent bi sëgg fi mu sëgg rek faalawu mu toogee ba ci ñitteel muy waaw dama ne man sama laaj bi xanaa déggunu ko at mu jot la ñuy aji yonent yàlla bi ne alayhi salaatu wasalaam ah, su ma ne woon waaw kon de yàlla dana ko yoonal ci a mu jot di ngeen aji te su ma nee waaw yàlla yoonal ko du ngeen ko man fii ngeen yem fi mu leen yem loo nee naa dem leen aji kay tëjoo sa gémmiñ gi gis nga yonent yàlla bi nee na ci gën a rëy bàkkaar fa yàlla yowmal qiyaama mooy koo xam ni daf yàlla dafa boyal benn mbir sab laaj wala say wax sa yàlla farataal ko ci kaw nit ñi te nañ ko woon farataal lii moo taxoon saxaaba yonent wax dañ naan nut duñ dégg duñ duñ duñ nangoo wax parce que rek ngir moytu loolu nit ñi wax ba tax ñu araamal dara fekk ñu araamal ab mbir te fekk naruñu ko woon a araamal waaye say wax moo tax ñu daal di koy xaraamal yonent yàlla mu ne gis ne ñi leen jiitu woon lii moo leen alagoon ah bari ab laaj foo leen fekk ñuy laaj di laaj di laaj am na loo xam ne jurut laaj ñaareel bi moom mooy wuute seen yeneen man daal ma leen digalee def leen la ngeen man su ma leen teree bàyyil fekk jàll te la ko boobu lañ si waaye man li ma yéen ci aj bokk na ci mooy aj mbokk yi dafa dajal ci ay xeeti jaamu yàlla lu bari loo xam ni néew na nga ko ci geneen jaamu yàlla xam nga fi mu nekk nii moom jullee ngi ci biiram ah joxe alal ñu ngi ak jihaad la parce que yonent bi tuddee na ko jihaad nit ki day joxe alalam joxe bakkanam sonn ca ñàkk ca daw ca ah bakkanam man caa des yooyu yëpp ay xeeti benn bu ci nekk rek bu demal ak jubbab boppam ak jaamu yàlla bu bu bu bu bu sax moom kese kon yooyu yëpp bu dajee ci aj mbokk yi la muy wane mooy aj kat nekkati kon rëy la loo xam ne ci mën na caa faat boo yeneen xeeti jaamu yàlla yu dul aj loolu tax na mbokk yi su fekkoon ci ni ñun day xam nañ dëgg dëgg dëgg aj wallahi effort bu ñu mën a def pour aj danañ ko def waaye nag jërut effort bi nit ñuy ma ne bu ñu xamoon lu rëy li nekk ci aj coono bu ñu mën ak loo mën a daj te mu dagal ko pour ko def parce que leneen loo xam ne lan la waaye nag jërut li ci nit ñuy daj tey na xam di ca bokk ak tontine ci yaa ngi yore ay boy yu dul jeex na xam euh, am loo xamante ni seen njaboot ñi ngi tumuraanke nga leen ñoom ajee ji ko toog ah na yaa ngi yore ay nit ba ñëpp laa tëj kaso nga bàyyi ko fa dem aji ji déedéet jëru ko nag wax dëgg yàlla jëru ko de xëccoo yëpp jëru ko gis nga léegi doomu aadama dañuy teg seen i bopp coono yoo xam ne daanga xaw tuuti ko jëru ko même si sabat si suñu ngi jub si waaye ci nit ñi ñaa ngi tàmbale di ko waxtaane jëru ko fii ci réew mi dañuy benn góor bu baax bu gu mën jàngale danañ def at mu jot mu dajale nit ñi jox lañ ay xari tabaski ku ñëw leen mu jox la xarum tabaski waaye ca déwén mu def njàngale moo xam ne yàllante ko woon mu njëkki ko mbooloo mi ñëw ran gudd lool kenn ku nekk di xaar xarum tabaski mu toog ci piliyaan bi rek ku ñëw mu ni sa gi yàlla am nga xar am nga loo jëndee xar wala amoo loo jëndee xar nga ne sama digganteeg yàlla bi aw ma lu ma jëndee xar mais demal ñibbi ko xabar si wàcc na keneen ñëw mu ne ko am nga loo jëndee xar wala aw ma loo jëndee xar mu ne ah wax dëgg yàlla am naa ko mu ne demal nga jënd ko jaaral sa bi ku ñëw rek boo ne aw ma ko rek mu ne demal ñibbi wàcc na ku ñëw ni am naa ko muy demal jëndal ko sa bopp ba mbooloo mi jeex ñëpp sax jeex na amul benn soxla fi mu nekk nii am nga loo ko jënd demal nga jëndi ko amul loo ko jënd wàcc na la sa fellu pas bi jëru ko gis nga nit ki bu fekkente ne dem na ba tabaski amul su ne loolu laa leen wax mbokk yi ba ne wala imaam sax imaam fi ne ak imaam rus naa rey bay fi ne imaam rus naa bay ndax nit ñi di la xool déedéet imaam ko waroon na ko a am mu dem aw bay bàyyi ko xar rey ko ngir jàngalaale nit ñi parce am na ñoo xamante ne fi ne bu ko imaam defoon rek léegi ñu ñene waaye bu ko imaam di ko ba ci kanam nit ñi mu rey aw bayam nit ñi gis ko ah ñu xam ne kii kat ñàkk lu mu jëndee xar su boobaa day ñemeloon ñu ci des waaye fi ne kenn ñi mu la rey moo tax boo ko seetloo ba ci biir kenn ñi moo la rey kenn ñi moo la bind mu ndaw boo ko xoolee ba ci biir résultat ba mu lay jox égal mooy mbir ñu sellu mbaa ñi ciy sellal bariwul kon ak tamit noonu la mel soo nee ci nit ñi nag daanaka jëru ko xëccoo geeg salti salti geeg boo ko yàlla yombal le bu ñu la ko mayee leew na ndax luñ la may ci alal la bopp bu fekkee alal joo doon la nga mën caa baax na bu fekkee loo ñaqal sa bopp la moo ci gën a baax ndax lépp lu ñuy lekk loo ñaqal sa bopp maa ca yàlla gu ñu jox suñu borom loo ñaqal sa bopp waaye nag mbokk yi jaamu yàlla yi dañoo xamul ni ndekete aj day moom ak fayam mooy ajana foofu tamit li ma ci waxaat mooy li ma waxoon ndax yeneen jaamu yàlla yi ku man ku mënul da ngay def dér waaye bu ñu nee aj ku man dafa fekk ni aj daa gën a jafe waaye bu ñu nee ajana mooy fayu aj yeneen jaamu yàlla ajana seen fay waaye aj dafa jafe am coono yoo xam ni vraiment ka ko matal moom kooku dafa yeyoo dëgg dëgg dëgg dëgg mérito ñu sàmmal ko ajana abi Hurayra mu ne yonent yàlla bi neen boo ko defee ba mu yàgg nga dem umra ci waat ah na nga yëg ni diggante umra beeg umra bi waat loo ko def ci ay bàkkaar yu sew soo ne suñu borom dana la ko fompal waaye aj bu yàlla nangu moom amul ab yoolam lu dul sàbbi ajam xanaa nit ñi dañoo xamul ni ak ci boppam dafay kappaara ay bàkkaar moo leen yi nga xam ne su am na ko su dee kabaayir muslim tuubi abi hurayra mu ne yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam képp ku aj falam yarfus arrafas alxaafis ibnu xajar ci fatul baar yi daf koy firee ñaari fii benn bi mu ni mooy ànd ak ak jigéen mu tëyeeg moom beneen bi mu ni mooy ñaaw ju àggu foofu waaye jege na ko mu ni yëpp arrafas mën na kaa teg kon jëful ak ñaaw teef gu mel ni njaalo ak ya ko jege jegaan féete ko suuf waa walam yab suq di nee na su boobaa su dellusee dafay pomp ci ay bàkkaaram ba mel ni bis bi ko yaayam juraati mu nekk liir liir ñaata bàkkaar leen daal duñ tuddoo tey dara zéro bàkkaar leen daal waaw ko dem ci aji yii dëpp ko ñu ne ko yow jéggal nañ la say bàkkaar ba nga mel ni liir bi amaan na kenn ci ñun dana ko dégg mu ni ah kon loolu rëy na de ma ne ko waaw rëy na de waaye jafe na de est-ce que xam ngeen nit ñi fi ñu ngi dem ba màkk di fa def yu bon yi am na benn waay wax te loolu aw xas la waaye lu la gis nga ci wàllu yaru rek yaru su ma benn xarit bu ma sa na ma gis nga boo duggee ci biir sant yi rek da ngay xam ne sant yi sénégalais yi nekk ndax ñeneen ñi nit ñi saraxlaayoo yaru noppi jiim sa kaamil amul jiw amul nangam déedéet santam sénégalais moom mu ne boo ñëwee rek bu dee yow ku xereñ nga rek da ngay ñëw rek xam ne fii ay sénégalais ñoo fi nekk foo toll seen kaw te wallahi dana nekk lu métti ci xol lool bu ñu waxee ne ay mooy yàlla sax ma nga fay am dimanche bii passé dimanche bii passé waxtaan naa ak sama benn xarit boo xam ne daaw laa aju mu ne ma am na waa joo xam ne fii la jóge ah dem ba ci foofu ci aji moom demoon na daal lii may wax da koo fekkee moo tax ma di ko liggéey mu ne ma mu nekk foofu am ku mu joxanteel rendez-vous foofu ci teg di tànn diggante tànn ak oto mu njaalal moom nee na waaye kéemtaan suñu borom bi mu joxal ma ne ma kon bii ki na leen tëli fa la muy waa ji def gëf may bëgg a wax nee na bi loolu amee nekk tam na benn waaye boo xamante ni ndeysaan dafa tànk yi baaxul waaye yàlla wërsëgal na ko mu aji moom mi ngi tëdd ci penk tas bi nelaw nee na bi ñu gisee ñoom ñaar ñuy jaalo mu yóotu loxoom bi mu yóotu loxoom rek rob ko rek aw na ko góor ko da koo bis ba da koo gaañ bi mu jógee foofu dégg naa sax moom fa la jaaree moom xam lañ koy limaale après lii ki ma ko nit dimanche passé la ma ko nit li mu ñëw fekkee na xoolal xoolal yi yu ñaaw yaakaar naa yéen a ngi dégg ci xabaar yi diw dafaa sàcc diw dafaa nangam dafa nekk ni maanaam nit ñi a jóg moo tax ma ne lii li muy yomb yomb ci jégg noonu la jafee ci ay def def parce que doomu aadama yi tey dañuy dem ba foofa defa wallahi wa rabbil da nga gis ay jigéen ñoo xam ne laa wax ciini coxam la ñuy joxan seen foofu rendez-vous laa wax yii bu yi dañuy toog di ko wax nii rek maanaam lu ñuy gëstu la ba am ci ay xam-xam doo koy wax yooyu dafa ñaaw ñaaw boo xam ne jéggi na day rus lu sax ni tëri waaye foog yokk ngir nit ñi xam ni la Abdullah ibn Omar waxoon rek mbooloo maa ngay dem màkk de ngay dem màkk bari nañ waaye ñay aji moom bëri na kon yéen si yàlla mu ne yii de ku sa góorgóorlu defoo te ah da ngay génn ci say bàkkaar comme ni nga xam gis bi la sa yaay juree woon xadis boobu muslim moo ko solo ndax doomu aadama yi liñ gën a ragal rawatina ci jamono bi ñu toll muy ñàkk te foofu maa ngi ciy waxaay ne ñàkk gi maanaam jàmbat gi seen du ko faj moom jàmbat ko di ko du du nguur gi xam nga doomu aadama yi nañ bàyyi xel leen l'islam ci boppam l'islam dafa amut yar yar boo bokkul ci di xas ak a saaga ak a wax ay wax yu ñaaw ci ji ak kum a doon même bu doon la même bu doon la te ñoo ko xas ak a saaga ak a nanga parce que kilifa la rawatina nag bu fekkee ni moom nee na la nga gis ko muy def ñu ko julli jox ko àtte julli bu fekkee da nga amul la métti dellul ci sa bopp gis nga nit ñi kenn ko laayet ni nu mel noonu la leen di yàlla di nattoo ku leen jiite mel noonu jiw yaa ngay jiw ñoo ngi lekk milliards yaag nangam dama ni boo ko toogoon nga lekk milliards comme ñoom jiw nangam nangam na di jiw waaye du ko jiw du muy toog da ngeen di yaakaar ni fi mu nekk nii maanaam tamit dafa yàlla lu dul mbir mi lépp jiw moo fi toog wala jiw jóge fi mbir mi du loolu mbir mi mooy nit ñi ci boppam ñoo dem ba toll ci ay mooy yàlla koo xam ne faw yàlla wàcc mbugalam zahara al fasadu fil barri wal bahri ma kasaba aydina te lii yan ci waxoon na ko alayhi salatu wasalaam saa bu ñu demee ba mbir yi am mbir mi am ba lale am am feete bu manqué ni taw bi taw bi ñëwatul saa bu njaara bi wasaaroo feebar yi kenn mës a xam commencé ñëw ila axiri yi gis ngeen kon li jaadu mooy nit ñi ñu xam ni ñàkk gi su boppam jarul ko jiñ kenn li am mooy nit ku nekk mooy góorgóorlu sa boppam waaye ñàkk sax su boppam dañuy wax ni ci istidlaal hadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da koy faxas da koy dindi yent yàlla bi nee na aj ak umra day ñoom ñaar dañuy ñett di pomp ay bàkkaar kom ñi nga xamante ne weñ gu ñuul gi boo ko jëlee dugal ko ci biir sawara bi ni uude bi def wala or bi wala wala wala xaalis bi ni ko safar ji safara si bictarñee bu dee bay mujj gën ci ko xool ni sànni fële dindi salte ya bàyyi la weñ këram gu ñuul bu xonq nga loolu nga xam ne loolu la koy tetalee ci tilim tilim yi bàyyi koo ci suuf si yonent yàlla bi nee na alayhi salatu salaam aj noonu lay def ak nit ki waaye bu dee aj du yàlla nangu ma moom dugg àjjana rek mu jeex jigéen nit ñu yëg ni jihaat li muy rëy rëy rëy màggat yi mag magal yi ñu yëg ni ah, buñ mënta dem jihaat it bu ñu demee aj mel nañ ñu ko dem jihaat yéen yàlla bi alayhi salaatu wasalaam ci xadisam Aïcha Aïcha ni ko waaw ñun de gis nañu góor ñaay dem jihaat si lépp dëgg la jigéen ñi léeg-léeg daanaka dem waaye bëriwul mu ni ko waaw ñun jigéen ñoom noonu la ñuy def te nga dem comme ñoom ndax ñoom ci yaabay jihaat yonente bi ne déedéet jigéen day jihaadam dëgg dëgg dëgg bu ma nee aj mooy mu dem aj am na beneen lafz yonent yàlla ba bi Hurayra dafa wax ni jihaadul kabiri wa daif wal al hajj jihaad ku màgget ak ku fële ak ku néew doole moom jigéen ñoo bokk yam bu ñu ajee rek am nañ yoolu ku moo solo xadis boobu ànd ak loolu ñu xam ni ajkat yeeg umrakat yi gane yàlla la subhanahu wa taala lan ngeen xam ci gan goo xam ni mbokk yi yàlla subhanahu wa taala na ne ngan bu ngeen mës a am ci kaw suuf bu ndax kat jub gane gi yàlla subhanahu wa taala ci xadis boo xam ne euh, Abi Hurayra moo ko soloo ja jaabir moo ko soloo mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na al xujjaaj wal ummaar wafdullah ajkat yeeg umrakat yi day ay gani yàlla lañ daahum fa ajaabuhu yàlla moo leen woo ñu dem wuy ci moo tax it wa saaluhu fa aataaw moo tax bañ fa ñaanee rek lu waay ñaan rek yàlla may la ko ndax ay gani yàlla lañ parce que xam ngeen ni su fekkee ab buur rek moo mën a invité ay gan defaral leen ci ay teraanga loo xam ne kenn musul gis lu ni mel kon yàlla ci boppam bu fekkente ni euh, ay jaamam ganati nañ ko ci anam gum leen nii war nañu mën a defal lu gën a rëy nit ñi mën a def ñaareel moom mooy aj ku ko fas ba def kat da ngaa ci garanti bi yàlla subhanahu wa taala waaye aj tamit dafay sukki Abi Hurayra mu ni ñett ngi ñoo xam ni yàlla daf leen di garanti waa ji nga xam ni dafa génn ci jàkkay yàlla joote la mu war a joote ba noppi yàlla moo ko defal ak garanti garanti gi nag mooy kenn mënu laa dogaale rey la axan kay mën nañ laa dogaale rey yàlla seen am fekk dalaa bëgg tàbbal àjjana nga ko dugg na ci jàkka ji nga génn nga nekk ci garanti bi yàlla benn waaye daf la fiir la nga dee ñu ngi nekkoo ci ga ah kay yaa ngi ci garanti bi yow bu fekkee dalaa garanti bàyyi la fi nga nar fay dund dund ko xajam jee xamoo foo jëm mu booy laaj benn waaye du la rey fekk yaa ngi doog a pare julli nga tàbbi kii kay garanti na la garanti na la àjjana bi gis bi ci def mooy waa nga xam ne dafa jug ngàbbu jaaseem jaar ci saawa gi dem jihaad fi sabilillah beneen bi mooy waa i dees moom dafa génn fas yéene aji aji daa lañ gën a sellante ndax am xam yéene nit ñi daa nañ aji ba ñëw kenn du yëg ne aji nañ man gis naa waa joo xam bu ñuy aji keroog bu muy dem quarante la yëg quarante ñu ko doon sëri dañ ko doon reetaane loolu quarante la yëg moom la yëg yëgalu ni maa ngi dem yëgalu ni maa ngi ñëw kenn yëgu dara maanaam daal ku waxul ne aji naa te ne mënoo koo xam ñëw loolu yëpp ngir nit ñi lan waaw ak jaamu yàlla la dem jàkka ji jaamu yàlla la ndax dafa ci sunna boo xam ne dañoo ko aju ba ñëw nañ ganale déedéet amul lu ñuy ganale di ko aju ba ñëw defoo dara lu jar ganale jarul yendal jarul rayal gàtt jarul dara da ngaa aju ba ñëw nit simple le commune li la war muy nga soppee ko ay jikko waaye da ngay seetlu nit ñi li ci ëpp daanaka nit ñi yëg ñu aji nga la wa illa ba ngi tëdd la ajaa wala allah ji comme ni ngeen ko xamee ci réew mi loolu amul solo déedéet amul solo ci ci ci lislaam moom xamuñ loolu ay allah ak amul loolu li am daal mooy aji nga yàlla nangul nal ko loolu muy lépp solo beneen bi ci def mooy ku aji ba ñëw boo ko xoolee wax dëgg yàlla ay am na lépp bu wolof yi lépp ñu wax ni bi bi bi bi muus demee aji ba ñëw bu ñu waxee jinaaf demal ziyaar ji ku mu ni déedéet nit mën naa aji ba ñëw waaye du tax ay jikkoom soppeeku mën na maa nekk foofu loolu ab xekk ma bu rëy la mooy nekk nit mën naa dem aji mu ñëw waaye bu ñëwee duggee jikko yëpp nekkoon siriyaande gaag jubadi gaag caay-caay gaag naxaate gaag soppale yaag lépp des ci moom kooku benn mandargaay boobu bu gën a rëy ci mandargaay bu koy wane ajam moom nanguwut ndax ku sa aj nangu rek boo ñu bisee soppee amaan na ñu mel ni man ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne yàlla wërsëgalu leen aj ñu ngi xeneen di yuppeeku ngir montagne yi tiyaaba yi ak tàbbi ajana yi ñu dégg te amuñu ko ba tax ñu bëgg a jaar yoonu mu sa na nga yëg ne yàlla subhanahu wa taala ku maandu la maandu teen géeg ndaa xam géeg yërmande bi dañoo kolewu ñoom ñett ñëpp bokk na ci li muy def mooy gis nga doomu aadama ji lum la xañ rek jox la la ko def lum la rek jox la la def ah aji woo am na yeneen xeeti jaamu yàlla yoo xamante ni ka aji du ko def yow rek yaa ko def yow yooyu nag amaana la àlla des na ko leeral ci xutba jii di ñëw ci nit ki mën caa góorgóorlu amee ko ca ca arafa ca la bokk fukki fan yi zil xijja ca la boobu nga xam ne yàlla mi ngi ciy wal fajr wala asr nga xam fukki fan yi njëkk si moom la ne ku nekk loo tabaski a loo tàbbee àjjana nga waroon a fukki fan lañ la ci jiw waxam promotion la pour tàbbee àjjana yooyu danañ ko leeral xutba jii di ñëw nit ki mu yëg ni doomu aadama jërut ci nangam diw lu am su amoon su ma nangam déedéet ñee ko rek nga ñaan yàlla nga am wasallah min fadli comme ko sunu borom di waxee waalamu anna alfadla bi yadillah yuti man yasha ngëneel yi moom ci loxol yàlla la soob moo ko nekk moo koy jox ko soob gis nga bala ngay xam ni du ma du war a du war a aji rek mooy tax aji da ngay gis waa joo xam ni yorut bërut ay jëlewam doyut daa waxuma la màkk sax waaye dama ne tukki yi gën a bëri nii ci Sénégal sax mosu koo def mu toog ba mu yàgg rek ñu ñëw may ko béy ne ko demal mooy yàlla ku mu woo a dund wuy si wa addin fi naati jël ajji yatuuka rijaala man mu ulaayka rijaal alladina daahum rabbi bu ñu yàlla woo faaw ñu wuy la faaw faaw ñu wuy da ngay gis waa yoo xamante ni ma ne la biñ ne ko dinaa wàcc suba ngay dem ci la ko ko ay kayitam mën na ko yëgu ko sax faf benn waaye jóge bala la kee jóge ko kee amoon ko jox la benn bi la tuddee da ngay dem waaye yenn coono yi jëru ko sa kallufaat yi jëru ko maanaam nit ki mel ni dafa yàlla ci def-def yi jëru ko ñu wax la yaay allah dégg laa dem maaka ngay jëru ko li am solo mooy buntu jaamu yàlla dafa war di sell ci xaj ci jaamu yàlla yi sell la bopp yal na yàlla dimbali ci jaamu yàlla yi mën a sell rabbana atina fi dunya xasana wa fi laaxirati xasana wa qina adaba annaar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا لمن اهتدى اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومن معافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نقصان عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه أجمعين